président demain qui viendra diriger ce pays il paiera des dettes ba pare euh, bu defoon cinq ans bu defoon dix ans ba pare du du tax mu continuer di fay Sénégal di continuer di fay quatorze mille milliards. muy benn. quatorze tuuti na sax. neel benn neel benn. am na plus de quatre-vingts personnes yu dee ci ay xew-xew. Mm-hmm. ba tey enquête amul waxuñu lu leen rey walla ku leen rey waxuñu ko. ñun doomi Sénégal bëgg nañu xam lu tax bëgg nañ ko xam am na ñoo xamante ne dañu doon servir le Sénégal ay fonctionnaires u Sénégal lañu. Mm. ñu nekk ci ay corps yoo xamante ne mën naa ne c'est la grande muette ñu làqu bëgg nañu xam suñu doom yooyu fu ñu dugg ak lan la leen fa yóbbu parce que ñu ngi barsak ñëpp ay dee. Mm. mais lan moo leen fa yóbbu. Mm. bëgg nañ ko xam. ak leneen ak leneen ak Sénégal tey ce système là on a le choix aujourd'hui hmm. de décider nous la population sénégalaise qu'est-ce qu'on veut de ce devenir de ce pays là. soit on subit le système. Mm. qui hmm. était là avant. Oui. ou bien on acte le changement. et je vais vous dire comment on va le changement. très simple. Hmm. la première chose. nañu dem jëli seeni ay carte d'identité sama gaay yi jóg leen ni xëdd bu jotee ni gaay yooyu di def naan jóg leen waa jot na man dama naan Sénégal jóg leen jóg jot na jëli leen seeni ay carte d'identité parce que loolu mooy la seule arme et précise hmm. que les Sénégalais pour changer et acter ce changement et acter le changement de ce système-là. et sécuriser l'électorat. boobu mooy benn mm. Mm. jëli carte yi. bu ñu paree am na nag lu ci laxasu loo xam ne dama ko bëgg leeral tey. mooy sama gars boo leen jëlee seen carte dante yi ba pare dem leen ca daaf surtout ñi nga xam ne dañoo changer lieu de vote. vote wala. ñu ñuy doog dugg ci liste bi wala ñu defoon leen ne peut pas voter ñu léegi ñuy doog dugg ci liste bi da ngeen war a dem ngeen laajte seen carte ndax actif na ca daaf bu la ilaa ci site bi am na site bu ñu joxe mun naa leen ko partager après parce que mi ngi ci sit yi hmm. c'est juste la communication n'a pas été bien fait pour que les gens ñu xam exactement lan la ñu war a def ñu dugal fa seeni ay filiales pour que ñu mën a xam ndax ñu ngi ci list bi buñ ca newul ñu dem ca daaf am na lu yoon teg pour loolu. pour que ñu mën a am seen carte yu ñu mën a actif lu weesu loolu nañu jàllale information bi ci ñépp parce que boo ko deful la ko mooy. Hmm. li mu indi mooy nga ñëw jour vote. nga naan dama ñëwoon pour voter fii ñu ne la centre bi bokkoo fi. yaa ngi géej waaye wala yaa ngi feneen yaa ngi feneen. pour bañ ca loolu nag nañ ko def. na ko kenn ku ci ne def sacerdoce nañ jàllale message bi ñu wax ko sénégalais yépp surtout ñi nga xamante ne ñu ngi doog am seeni i ay carte chose dama ne nañu rester sur le terrain politique parce que la politique il faut occuper le terrain acter le terrain et activer le terrain il deux choses acter le terrain présent mais l'activer l'animer pour animer le terrain et comment aller dans les maisons waxtaan leen ak sénégalais yi xelal leen xamal leen li xew mm. ak fi ñu jëm ak importance bi tax ñu war a changer dafa jot man damay ruus am kersa su ma gisee maire buy jaay ke gerte caaf am soixante quinze ans non non non kooku waroon na mën a liggéey ba tey day dem ñu koy fay pension parce que koo koy fay juuti ci lu mu yanu siwam di dem bëccëg fajar di dem jëndi jën maire yi. Mm. ay soixante-dix ans non loolu dafa war a changer et la communication sera très importante surtout sama mbokk patriote yi laay waxal. Mm. dem leen waxtaan ak sénégalais yi ca marché yi ca luuma yi ci kër yi jaaykatu beñe bi jaaykatu gerte gi suñu wëyjur yi nañu waxtaan ak ñoom xamal leen ni. changement bi li tax mu war a am ak importance bi nga xamante ne war nañ ko ko jox ci lay ñëw ci li imam wax hmm. bés ba ba jotee na ñëpp teel a jóg dem vote ji waaye dafa am lu koy laxas nag mooy sécuriser le vote il faudra voter utile il faut faire un vote utile parce que on va élire un président cette année-ci en 2024 dañuy fal président incha allah Mm-hmm. et dinañ ko fal ak le président Ousmane Sonko nag parce que ce sera notre candidat et il sera le président de la République. Mm. incha allah li ma la wax nii. ce <laughs> sera difficile ah, de croire. Ah c'est ma conviction personnelle. il faudra sécuriser le vote. Mm. il faudra informer et éduquer la population. à mm. aller dans les bureaux de vote. faire même du volontariat. représenter les partis communs. dans les centres. voter utile. sécuriser la vote ci lan dinañ leen ko defal ay jàngat yoo xamante ne dinañ jàngal suñu waa parti ñuy sécuriser vote bi waaye kenn ku ci ne da nga am responsabilité tey en tant que citoyen du Sénégal de sécuriser ton vote parce que dara gënul metti nga vote ba pare ñu dëpp kees wala ñu dugal ko li koy teere nag mooy nañu dem ca centre de vote yi toog fa caayin fa bu décompte bi jotee ñëpp xippi seen bët xulli. ni ko sama waa ji di waxee xullil. paasan paasan xullil bu waa ñu xulli waññi ñu xaarale ko nag ci lu mel nii. di eh. tele ci poos yi. Eh. ngir ñuy moytu. Hmm. dëpp kees wala luubal ay. élections ay élections <laughs> message bi leer na alors Imaam. ak yow la ñuy jeexalee maa ngi tudd ay Habib Sy sànq yaa ngi wax ni way façon Ousmane Sonko la ñuy xaar est ce que am ngeen ay information par rapport ak moom fi mu ci toll naka lay dundee yëf yi Euh, au-delà de étape bi aussi ci lan la leen mën a xaar yow moom finalement. waaw xam nga moom euh, xam nga moom dund dundam moom yëf yi. Hmm. dund ku ragal yàlla la. dund kuy hmm. bàyyi xel yàlla bu dund ku gëm dogal. Hmm. beneen bi ci des damay dégg euh, su ma juumoon maître ma soxna kan. mu ne dañu dem tribunal de Dakar. mu am fa mu yàkkamti dem pour informer ko. fekk ko muy nelaw ñu yee ko mu jóg xam nga koo xamante ni tey ñu ne ña ngi lay àtte tribunal <laughs> yow yow looy def sa occupation lu dul tëdd di nelaw kooku yow yaay ñi nekk ci biti ñooy xalaat ni. Hmm. kii dañ koy jaarale fii kii dañ koy def lii fekk na moom xam na ni yàlla noppi na ci moom bu yàgg. Hmm. biñ ko joxee information bi. mais dafa mel na comme si dafa dellu rek sant yàlla ne alhamdulilah passé. moom. Hmm. mais pare na ci kon la mu nekkee moom xam na ko te balaa mu cay dem wax na ñi mu jege lu jiitu su ma juumul ay weer wow ne leen fi ma jëm fii la parce que xam naa ñi mu ko séqal ndax li ma bëgg a def duñ ko nangu waaye nag sénégalais yi danañ ko nangu ba Ousmane hmm. li xew ci maire yi doy na waar de ci maire yi ba Ousmane hmm. jël magum moo xamante ni moo sa yaay ñoo maase. di ko baleloo mbedd meer yi. Mhm. tuberculose mën na ko cee dal lu nekk mën na ko cee dal. da mhm. koy fay ay quarante mille cinquante mille. Hmm. par mois. Mhm. te bu xëy suul ba moytuwul nga dàq ko ñu daw di ko rang di wuti looloo fi war a jeex. Hmm. Pape Ousmane yow mi koy baleloo sa morom sa doomam nga moroomu doomam nga. boo ko rombee ci mbedd mi sax doo wàcc sa vitrine oto nuyu ko encouragé ko ndax màcc nu dimb dana tax dimb weex encouragé leen xool leen mais doo doo leen sax doo leen sax jéem a xam léegi li nga gis ci koo xamante ni man ñiy ñëw di ma réclamer ay ordonnance ordonnance yoo xamante ni bu ñu la ko tegaloon wala nga tegal leen nit da nga naan noonu lii c'est pas possible Ousmane lii xew ci biir kenn mënut a wax lépp Mm. kenn mënut a ki Demba Ndiaye président mu ngi leen defal cadeau yokk seen salaire. xam nga. c'est baax na waaye xam nga. man jokk boobu dama ko jàppe comme yokk Ablaye Wade bi. Ah. keroog ba muy wàcc. di jëndal ñe préfet yi xaw ma ñan la doon jëndal oto. oto deux koy tuddee ci chef de chef de village. de village. la jëndal deux cent yi indil leen loolu <laughs> mais douze ans de de de de de règne yow lijjanti woo affaire adjoint au maire yi lijjanti woo seen i indemnité yooyu nga toog bañ ni la fi mu ne nii xamul lu ñu lay ñaan mooy rafetal ci mbir mi rek te nga fab say bagage te seet nooy def toog sa ruqu kër te nga arbitrer affaire bi nag. Mm. arbitrer ko normalement ñu dem xeex. li ñuy xeex ku yàlla wërsëgale loolu. Mm-hmm. balaa xam nga dañuy wax nag balaa midi ma ne leen nag fii Sénégal. résultat yi du génn midi. mais biir na ma ni. à partir de 14h. dinañ xam daan ñu xam ni lu waaye doon jaay yàlla jëndal na ko Ousmane Sonko. allahu akbar incha allah. incha à partir de 14h mu nekk ci biir ak mu nekk ci bitti parce que nag maam Ousmane góor a ngi nii de. Hmm. nattu naa ko ci côté bu nekk nag du lu may wax waxandu aw ma jot boobu. te fa ma nekkoon man. kii xam na ko neexoon na de. <laughs> man fi ma nekkoon. Ah. neexoon na mënoon naa ci continuer. jege woon nga de. torop mënoon naa ci continuer defar bu baax a baax a baax. te dañoo xëy rek jëlee dama dem dama dem màkk. c'est ah. të të të Pape dama dem màkk dinaa fi la koor gi weesu. Hmm. Hmm. mu woo ma téléphone. Hmm. ma décroché ñuy waxtaan. ma ne ko ah maa ngi nii màkk xam nga la mu njëkk wax moom ma njëkk frappé daf ni ma yow de ñeenaa la yow de ñeenaa la te man maa ngi ko doon yërëm di ko wax ci affaire situation yi mu nekkeek ak yooyu ne ko maa ngi fii màkk di la ci ñaanal ak yooyu xoolal loolu la waxu ci waxu ci jëm daf ni ma ñeenaa la yow mi nga xamante ni yaa ngi jóge ci raw du yonent bi jëm ca Kaaba ga kon ñaanalal Sénégal yëpp. Hmm. ñaanalal projet bi yàlla mottali ko. yàlla na la yàlla indee jàmm. la may wax naan ko maa ngi lay ñaan ci loolu. waxu ci commentaire waxu ci. Hmm. lii kañ mat na ñaata weer. non boobaa eh, mooy koor gi weesu. koor gi weesu hmm. koor gi weesu la yooyu nag nit daal la. nit la booy wut nit. nit la. yàlla na yàlla mottalil ko. fa mu nekk nag bu mu la jafe. waaw li ko xuree si waxee rek. moom insha allah fas yéene nañ koo nekkal ci biti. nekkal ko ci biir. Hmm. bu dee suñu kàddu gii. Hmm. mooy tax yàlla defal ko li nga xamante ni moom la sénégalais yi bëgg waxuma li mu bëgg de. Hmm. moom li sénégalais yi bëgg moo ko ñor. suñu kàddu gi danañ koy yëkkati di ko tal ba yàlla defal ko ko. macha allah. te nag ànduñu nit ngir intérêt. xamuñu ko sax. yow xam nga ci dara. am ñu ko sax am ñu jot mm. dañuy ànd ak nawle. te moom ku mu àndal àndu nawle la. àndu nawle waaw am nañu si loo jeexale waaw d' abord leen bu baax. Mm. Euh, di leen masawu ci toogaay bi. temps bi yàgg na <laughs> mais alhamdulilah mais euh, li may tëjee. Mm. lu simple la. ñu ngi jëm ci loo xamante ne. pour Sénégal lañu wax ni pour la. Mhm. Sénégal. Mhm. Mhm. ay doomi sénégalais daw di ko wuti. Mm. ku ne am ci yaakaar man personnellement tey je fais un appel à toute l'opposition du Sénégal. Mm. je le répète je fais appel à toute l'opposition du Sénégal ñi ñu recalé ci parrainage bi ak ñi jàll ñépp. ak ñi bëggoon a nekk candidat mujj désisté képp koo xamante ne njëriñu Sénégal moo la ñor. Hmm. que ñu porte ñaar yi. dong du changer dara ci sa bëgg-bëgg ak sa projet bi nga amal sa bopp. mais lii pour Sénégal la mooy ñaar yi fichier bi. Hmm. bi baax nag laa wax fichier bi baax nañ ko jox. gars yi ñu mën ko saytu parce que on a beaucoup d'électeurs fantômes ouais. et qui ne dit pas sa raison. Amadou de douze mille. pour le PASTEF. waaw et des vingt mille pour certains d'autres. de trente mille pour certains d'autres. pour certains donc des milliers. dix mille également disons on a des milliers de d'électeurs fantômes. te gëm naa ni fi ñu jëm dafa war a leer ci bopp sénégalais bu ne même waa conseil constitutionnel. Hmm. dañ leen war a yombalal seen liggéey pour ñu bañ a am réeroo ak seen askan parce que dañ leen wooye les sages. boobu mooy benn na ko sénégalais yi waaye surtout l'opposition porter ce combat là ils doivent pouvoir avoir une visibilité. fichier si fichier électoral c'est le minimum qu'il doit pouvoir demander. Mm. deuxième chose nous avons besoin d'un ministre de l'intérieur qui ne pas partisan ou bien qui ne fait pas parti ci benn parti boo xam ne dafa bokk ci jongante bi parce que c'est pas fair play hmm. du tout ñi fi nekk dañ ko doon xeex hmm. li ñuy wax la roue tourne c'est un boomerang je don donne ce boomerang li ngeen doon xeex ba ñu xeex leen leen ko ñun doomi Sénégal ñu ngi leen koy ñaan ngeen indil ñu ministre de l'intérieur boo xamante ne hmm. il n'est pas partisan surtout nag ku bokk ci yéen parce que da ngeen am mbër seen mbër dafay jongante donc pour mën a bañ a indi lënt-lënt hmm. na opposition bi demande à ce ñu am un ministre de l'intérieur boo xamante ne du bokk ci ñoom du bokk ci beneen partie hmm. waaye it fichier bi ñu saytu ko waaye fichier bi baax bi nga xamante ne moom la ñëpp yore ñu fexe ba ñëpp jot si ngir mbir mi leer sénégalais yi nag maa ngi leen di ñaanal di leen woo ci lii nga xamante ne mooy élection présidentielle yoo xamante ne jàmm ak salaam waaye pour le devenir de ce pays là il va falloir que la jeunesse surtout la jeunesse je fais un appel solennel à vous ngeen taxaw votre avenir est en jeu hmm. et je vous pose la question est-ce que vous allez laisser à César de décider pour votre avenir ou bien vous allez choisir votre avenir et un devenir de ce Sénégal meilleur. réponse 25 février 2024 incha allah ci la ñuy xam tontu li war a bàyyi ko ci askan wi rawatina ñoo ñooñu ñuy woowee ay électeurs ndax finalité bi mooy ñu tànn. Mhm. njiit lu war a remplacer euh, président Macky mu war a doon euh, juróomeelu euh, président de la République bu Sénégal ci ngoonu 25 février incha allah naka ñëpp fekkee. ci lañ koy xam merci beaucoup euh, Khoureychi si à toi bokk ci Pastef euh, représenté ko ca Sacré Cœur merci beaucoup à imam Khalifa Ababacar Ndiaye nga mhm. xamante ne plaisir bu mag laa am de trouver ko mhm. de même que Khoureychi pour la première fois également ñu bokk jotaay bi mais ñu ngi rafetlu bu baax sa sa teewaay jërëjëf ak it yaatal yeeg leeral yi nga indi ci jotaay bi gërëm bu baax yéen doon bàyyi xel fi ci réew mi mhm. ak ci bitim réew baaxoon na ñu taxaw ndax actualité forte bi comme ni ma ko waxee sànq euh, di euh, la tukkee ca conseil constitutionnel baaxoon na ñu am également ñoom seen réaction bu ñàkkee dinañ am réaction waa boor bëri voilà ñoo bokk li nga xamante ne mooy langue bi te du yàgg incha allah dinañ ci ñëw gërëm leen sant leen merci beaucoup à la réalisation ah euh, Yankouba Badji maa ngi koy gërëm bu baax Babacar mm-hmm. également Ndiaye mm-hmm. euh, ci taxawaay bu baax on se retrouve incha allah euh, beneen numéro yeneen i gan ci tribune d'actualité ci sans limite nga ni fa duut fa baaraam loolay metti seen xol yi. ay ngoon saaga di xuloo. ayez le la vérité aux Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis ak ak ayat alquran yi. ngir ragal gouvernement bi.